Ngagne Sène a Seck Ndanane Ngagne Sène Ngagne Sène njool mi waaw njool mi Ngagne Sène Seck Ndanane da lay daan plaqué na la daan la baat la jeex na baat la kookoy Johnson kii mooy doomu Ndiakhate-Niaw kii mooy doomu réseau de Fatick l'enfant ngi nii kii mooy Johnson oh moom lambu simple nit rek la si jëlagul. jël na lépp jël na lépp. mooy Johnson. bi mooy premier combat am arène. at bi day wadawaat. dañuy wadawaat. ngañ seen. ngañ seen at seek ngañ seen mooy njool mi. ngañ seen at seek ndaanaan. ngañ jëlaat na ko te bu da lay mbaar. mbot na la fàq na la. da lay balaake wala déet ay waa joola yamul. nga daalaat na ko julli ay waay ay waay ay waay nga ay waay Johnson ay waay Johnson la passerie de Ndiaga Niao kii mooy doomu Ndiaga Niao bi nga jara ngi noonu waaye mbaru Cheikh Sarr baa ngi doomu Fissel la moom nga seen doomu Ndiaga Niao la nañ ko bàyyi xel bi mooy premier combat arène moom Johnson kii mooy Johnson nee naa leen mbaru simple yi tey kenn amagul defet dañuy compétir ay xale lañ doole yamut Johnson waaw bëgg naa Johnson kam lan tang leng ke dara roog soom fi un kontaan naa ma paax a wen yoon daas yaa caaka fay reg reg Sarr bàyyi ma kenn daal ñu ma àndal entraînement ko lu waral loolu. gis nga. ñu yëpp maa leen indi am na lu des. ñu yëpp maa am na lu des loo bàyyi foofu. am na ñu des oto ñoo amul. waaw. jox leen man di nekk ci kaw. dafa am lu la bëgg a laaj. nekkul woon yaa ngi sekk ndaanaan yaa ngi xaytale mu dem ba si biir mu gaañu. waa gis nga. nga jël combat deux jours. non daa waxoon naa ko xëjuma ci moom yal na ko yàlla may réew wér mu wér. <laughs> jox leen mu nekk si kaw si kaw. ñan ñi kaw.